mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi taxaw ak Malick Niang le grand champion kenn du ko notable ci làmb Malick tey nga indi sa frère wala sa plein muy bëre lan nga ban yëg-yëg nga am. waaw di la nuyu rek di la kontaan trop si interview bi waaw suñu suñu rakk la ngeen tey caatu Yoff muy xale boo xam ne Yoff dafa am si moom yaakaar ñu koy ñaanal li mu entraînement yëpp yal na ko jot si biir géew bi coono yi mu daj yëpp yal na ko yàlla fay fii si géew bi. yow daj na coono physique li ci des rek mooy yàlla motalil ko ndamam quoi waaw. ban conseil nga ko mujjee jox ni ko noonu la war a mën a bëree ba génn ci làmb. waaw ñëw rek dëggal boppam indi mu gën a wóolu si lim mën rek teg tegal ko adversaire loolu rek la li des moom après yàlla mooy may ndam quoi waaw. ñetti mbër dañ lay nuyu. damaa xamul kan nga ciy fay. ñetti mbër yéen. Garga Mbossé mu lay nuyu. waay <laughs> kay waxal ma sama waxu waay kër yi. Sa lay nuyu. waaw waxal waxu waay <laughs> Reug Reug mu lay nuyu. waaye kër Yoff daal maa ngi leen di fay <laughs> waaw. ñett la nuyu yëpp doo ci fay kenn. du ma lay nuyu. <laughs> waaw fay naa. bisimilah. Malick maa la xam da koy fay. bisimilah waaw. da koy lalal tapis rouge wala tapis vert. waaw teraanga rek <laughs> teraanga rek. ndax daa xam teraanga. waaw waaw dafa jox defal ko ay jën ay jën yu baax waaw. Malick noo gisee làmb moment bii. ku ci mel ni Malick Niang waroon naa bëre. combat bi ci yow la tagee wala ci promoteur yi wala da gisul promoteur. non non mosul tagee si man promoteur yi ñu ngi kii man problème adversaire la am maa ngi entraînement li mbër di war a entraîné maa ngi récupéré you maa ngi sama yof toog sama yof you know problème adversaire la am euh, adversaire mënoo leen fekk seen kër nag di leen kii <laughs> di leen bëre ñoom force doo mën la nekk. mais Malick war naa mën a am koo xamante ne bu wàccee ci làng gi nga daw freiné ko. nangu gala ñuy du bàkku du duggati ci làmb ji kal la. <laughs> loolu moom mënu ma kaa def. ñeme nga koo def tafaatin mu dugg si rek nga daw dëkk ko. loolu mënu ma kaa def benn mbër sama raxas day fëq ndab ñoom mën nañu raxas siital ñu koy def mën nañu raxas siital man su ma ko defee sama raxas day fëq ndab dañuy nangu sama lisaan. Garga Mbossé nee na dalaa bëgg nga bañ mu dem ba daan Moussa Ndoye nga bëgg tàllal loxo du loo xool loo wax ci loolu. waaye dé dé déggu ko sax déglu ma ko sax ma déglu ay waxu ay waxu beneen mbër. lan sa diggante Garga Mbossé dëgër waaw dama ko daanoon daan bu xaw a xeebu quoi daan bu yomb si mbabatu Yoff fële njëw. fi ñuy moo daan waa Yoff yàq làmb ci nangu télé bi. non non non kullu xaqal kaana man gisuma doomu aadama bu ma jaral fenn si kaw suuf. fekke nañ ko ma ko moo jël béjjënam lonku kii bi loolu mais ay bës si bëgg rek ay moom a daan xam nga mais moo moo xam na jël. Malick Niang mu weex mu doon bëreeg aadama Diouf mën nañ koo gis. <laughs> non bu gën a wax wala bu gën a lewet boobu sax nga bu gën a yomb boobu. bëreeg Moussa Ndoye mën nañ koo gis. <laughs> lépp maa ngi fi dafay est-ce technique yi sax yokkuwuñu technique yi dañoo yokku. parce que promoteurs fi mu toll nii ñu ngi wax sa combat. waaw ñu ngi bëgg sama combat mais chaque jour dañ ma wax bi nee na waaw deux jours trois jours ñu ne ma bi ah lii ax laa. Malick lii est-ce que baax na ci sa carrière lamb. ah yàqul dara de moom bu baaxuloon kon yaakaar naa maa ngi seen morgue ba wala gendarmerie. <laughs> mbër daa war di compétir tout le temps mais bi nga bëree Ama Baldé ba tey gisuñu Malick Niang. mais bi may jàng école nag sama premier combat nag lan laa fu laa ko fay ree mu daanu samay tànk beneen bi aussi noonu beneen noonu beneen noonu tey boobu musuma dugg si géew première ngemb bi ma njëkk a takk dama dem dóor nit mu daanu ma première ngemb bi ma njëkk a takk bëreegu ma sax mbapat dama dem dóor nit mu daanu ma ñëw. est-ce du looloo tax mbëri di benn benn mbër sañ-sañ fële maa la bëgg a def lii loolu yemale ma ko kenn su ma ko gisee si keneen rek kooku mooy far li nekk sama mbër. grand contre petit noo ko gisee ci làmb. waaw nañ ma si daaxaale rek man na petit laa balaa moo gën a neex kay ñu boole si lébu bi rek mu gën a neex. petit bi kan la bëgg. grand yëpp bëgg naa grand yëpp. grand yëpp kay jeexal nay wax. gannaaw yëpp ci yow kay indil ma avance rek boo ñëwaat. jërëjëf ma merci beaucoup. jërëjëf mbokk yi ba tey ñu ngi taxaw ak kenn koo xamante ni kenn du ko présenté ci làmb muy suñu papa Zallo Zallo nag ku ne xam na ko ci bëre ku ne xam na ne lu mu def ci làmb bari na tey muy ni doomam muy bëre Père Zal maa ngi lay nuyu. maa lay fay maa lay fay bu baax. tey ban yëg-yëg nga am indi fils de Zal muy bëre. yëg-yëg bu rëy d'abord li tax may kontaan mooy arène nationale bi parce que suñu père bira suñu père maam góor gi Ndiaye def fi jaar bëre ba bàyyi bëre ñuy wax arène nationale amut père Mbaye Guèye ñëw génération boobu génération ñoom Tafa Guèye ñëw suñu génération ñëw ba ñu jàll tey tekk suñu ngem xele yi am tey chance bu arène tombé ak arène bi yàlla may ma chance ma am sama doom mu ciy bëri dafa mel ni tey man maay bëre ma am contentement bu rëy di ñaan yàlla nag mi may ndam premier grand combat am bi mu nekk sa souvenir bu mag ci man loolu laay ñaan yàlla. fils de Zal ñii nee nañ ko magu Zal Lo moo la jur wala Zal Lo mooy sa papa lan lañ ci bëggoon xam fils de Zal sa lan waaw sama mag bu ma bokkal ndey ak baay moom mooy papaam waaye xamul papaam man la xam maa ko yar maa ko dugaloon école mu jàng man la xam daal man la baayoo man la def lépp te yaakaar naa ki nga bokkal ndey ak baay euh, doomam sa doom la. fii dal Sénégal la kenn mënu fi nëb dara dama koy ñaanal yàlla mu àgg ba ca kaw tey boo ko nëbbee ba mu àgg ba ca kaw tamit dafay feeñ sama doom la man la bàyyoo ñoo bokk deret man ak papaam voilà mu nekk euh, loo xam ne dama ci kontaan trop tey daal dama ko indi yëg am ci yëg-yëg bu rëy di ñaan yàlla mu ñaan ñaan mu am ndam lu rëy lu sedd guy ci barke Seydina Mohamed. kon deret gi ci yow mooy daw ci moom moo tax mu bëgg bëre jël opté jël làmb def ko muy métier ban conseil nga ko ciy jox moom xam nga ko ciy jox mooy d'abord man dama sonn ci làmb dama dugg ci làmb sonn ci dañ ci ay coono yu metti moom mu dugg si ci bëgg si première fois mu may wax loolu damay ko dama dem testé ko xool ko xam ne mën na bëre mais su ma gisoon ne mënul bëre coono gi ma daj ci làmb damay jaare noonu rek dem noppale ko ji dul ma jaralaat kon man ma ci jéem a nekkaat di ci jël sama temps di ci amaat ay coono mais gis naa ne am na qualité bi am na fulla ji am na fayda dinaa ko jéem a poussé di ñaan yàlla mi mi yëkkati nit mu yëkkati ko rek ba du mu def lu raw li ma def. lan la mën a bëree tey ba daan combat bi. non loolu secret la mais xam naa ne ñoom ñaari xale la ñu xam ne ñoom ñaari ñëpp ñoo mën bëre caatu ngéwél ku ko xam seetaan koo xam ne dafa mën bëre xale bi tamit ku ko seetaan xam koo xam ne dafa mën bëre mais mbër boo gis am na ay foor am na ay faiblesse ci ay faiblesse am nag liggéey nañ ci dañuy ñaan yàlla rek mu suturaal ñu ba ñu am ndam ci loolu. day xeex wala day bëre. lépp dina am allah. ci kanam tuuti di ko gis incha allah rabbi. le grand champion kenn du ko présenté ci làmb jërëjëf Père Sall jaajëf. Ibou Ndiaye Obali maa lay ziar. ziar naa la bu baax doom day. naka sant Serigne Touba. maa maa ngi am jàmm bu baax. yaa sa doomu nday mooy bëre nga ñëw loo yëg. waaw di ko ñaanal rek incha allah rabbi yaa nga may ko ndam xam nga doomu séeréer la doomu Diofior waaw di ko ñaanal nekk si ginnaawam xam nga maak sama doom nday Ondinga Jibi xam nga ak boo ma ànd ak nii yëpp waaw ñëpp a ngi si ginnaawam xam nga ne boo gisee waa Diofior mobilisation bi ñu def nii nga xam ne instant bi gars yi bàyyi nañ caaxaan pour nekk suñu ginnaaw te bu mu amee combat ngay gis ku gën a doy waar ngay barki Serigne Touba. dañoo seetaan Yaxya Diop Yékini ITV ñu laaj ko yan mbër nga gis ni ñoo gën nu nduru Yaxya Diop ci bëre gi ci mën a bëre gi ci am jom gi ci am fulla gi ak fayda gi mu tudd la ci loolu bi nga ko yëgee loo yëg. waaw mais sant yàlla rek parce que mbër yi bëri nañ. amaana li mu gis si man noonu ba di ko wax moom moo ko xam parce que sëriñu Daagor moo ko mën a wax kii tari suba waaw kon sant yàlla quoi parce que mbër yi bëri nañ mais taxuñoo sax ay raaf tamit dañuy nekk si li ñu nekkoon rek dimanche ñu dem taxaa suñu ngemb dem bëri waaw man ku ma xam-xam ne Yaxya Joob Yékini mooy sama idole si làmb bi ma nekkee xale ba ni may toog Yékini saa bu mu saan daanu du ma reer dinaa am problème waaw sant naa yàgg nag bu baax comme mu ngi gis si man xam naa am na amaana ñenn ñi gisuñu ko mais Yékini waxam du waxu tey waxu suba ngay doon yaa nañu yaaga may gudd fan ak wér rek. ñu déglu ba suba rek incha allah rabi yaa nañu yaaga may gudd fan ak wér. Ah, jili bëgg naa la. la ëppee gaan. nga dafa mel ni sa yaram tàng na de. wuu jër la def instant kay day bax nii. wóor na yàlla xam rek waa di ñëw xam nga. seetaan si làmb bëre dóor xam nga ndax man ci làmb bëre dóor laa bokk quoi man instant bi nii. mboor bi dañoo guddee rek fanaan fa mais mooy loolu dëkkuñu ma quoi. adversaire fi mu toll nii koo gis kan la. waaw mais samay adversaire bëri nañ instant yi mooy loolu ah booy grand bëri ay grand combat ma jox ma mais du ma ci dëkk si kenn sax nag. di ko may buzz. ñaata ngéwél fils de Zal bëgg nga. bëgg naa man dama fi nekk pour làmb wóor na yàlla man bañu ma kenn ku ñëw baax naa. ku daan ñu la jox la ko. daan ñu jox ma ko amul problème. pare naa ko. ñaari doomu nday lañ. Ibou Ndiaye Obali. déedéet. li mu def stade bi arène nationale grand combat rek mérité xale bi cay làmb ndeysaan kott na ko bul jox cay làmb Basirou kii warul bëre lu dul grand combat lii fu ne nit tëg jóge fa nii ñoo jor Simla fu ne jóge fa ànd xale bi Doudou Sané ñu gën